معصومة به من الملاهي كليتي عابدة لله ذكرا وشكرا ما نهاني الله أقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقول لا إله إلا الله كلي ولا إله إلا الله محمد صلى عليه الله أفضل من أرسله الإله محمد صلى عليه الله أفضل من أرسله الإله حفظني من المعاصي الله بعز لا إله إلا الله إلى فؤادي يقود الله علوم لا إله إلا الله إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله إلى مواده يقود الله سفاء لا إله إلا الله إلى كتابة يقاد الله دعوة لا إله إلا الله إلى مكاتب يقود الله أنوار لا إله إلا الله إلى تواليف يقود الله إرشاد لا إله إلا الله وانشر على كتابتي يمنى الكتاب وأبدا وجه لغيري العتاب ينقاد للكشف الصحيح في العروف العربية مع امتلا الظروف وجل حروفي كلها عبادة واغرق بها لي يا إله الأعداء وجه حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وجل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وأنه جعل ما كتبته كما كتبته وما كسبت إلي قد مواهب السادات لدى العبادات وفي آداتي بها بقت الله كل مرسل على الجميع صلوات المرسل بها بقمة نبي الأولياء عليهم مورد المفيد النيليا بها بخط يا عباد الله الله قد أنزاك فضل الله بها بخط يا عباد الله الصالحين الله موزي الله بها بخط يا فعال الصعب رضي عنهم وأنار الله بي بها بخط يا عباد والرجال من به أني توا كل مجال بها بقتل العلماء والأولياء من سانني أولي سان نيليا جعلني الله تعالى آية معجزة وليقاد الآية نزعني الله من الخلق مها له ولي به عداية قمها نزعني من الورى الباقي القديم علمهم بأنني الأبد القديم مد لي الحافظ يمنى الله في القول والخط ففاز اللوه مد لي العليم تعليما عجز عنه السوى وتقبل الرجاء مد ليسر المسون من جهل خطي أكبر الرداء فانجعل مد لختي مهجل القياس من بيباها جملة الأقياس مده النبي المنتقى لجنة قبل وبعض قد غدا لي جنة مع مدادي وانجرار قلمي به وأغناني عن التعلم مع مدادي كدماء الشهداء في غزوات من يفوز الشهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون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 mbokki julliti iginaa bu ñu sante yàlla buur bi subhanahu wa taala di julli ci yonanteem bu tedd ba sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen di leen bàllu àq di leen bàll àq te ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu boole nu jégal suñuy àq yi dox suñu digganteeg moom ak suñuy moroomi jàmm di jiital ci nuyu bi ak ziyaar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général kullu murit di ko ñaanal yàlla sun boroom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba lépp lu mu yéenee liggéeyal islaam mu àggali ko te ànd kook mbooleem jullit yépp seen mbokkum bi taalibe di caare mooy fas yéene dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bii di ëttu xasida yi ngeen baaxoo ko am àjjuma bu jot Euh, fii ci seen rajo Zik FM bu Mbàkke 93.8 ëttu xasida yi di jotaay boo xam ne euh, dañ ciy fàttalante ak di laabirante ci ngëneel yi nga xam ne suñ boroom tabaaraka wa taala defal na ko Serigne Touba ci xasida yi. Eh, xam ngeen ni sëriñ bi dafa ñaanoon suñu borom tabaraka wa taala ni ko wajal daadi wa xilaami wal lisaan daahiyatan lisil jamaali bi xisaan sëriñ bi dafa ñaanoon suñu borom ngir xasida yi di def ay daawa maam di woo taalibe yi di leen jëme ci yàlla suñu borom tabaraka wa taala te jamono ji mbooloo mu takku jublu nañ xasida yi loolu nag di tawfiix di ñaanuk sëriñ Tuubaa gu nangu moo tax jamono ju nekk rek war nañ di soññee ak di fàttalante ci warma ji nga xam ne war nañ koo xasida yi waaye anam gi nga xamante ne buñ ci jaaree suñ borom mën naa dogal ñu gaaw ci jëriñu dëgg dëgg jëriñu ndax xasida moom lépp rek njëriñ la njëriñul doomu aadama bi njëriñul jullit yépp la comme niko Serigne Touba bindé won ci ta'lim bobu nga xamné mom la defon waxon ne li ya'lam kullu man taallaqa bi annani tawajjahtu ila allah tabaraka wa taala bi tawalifi takunu fiha manafi' al muslimina wal muslimat fi dunya wal akhirah serigne bi dafa waxoon ne képp ku aju ci man na nga xam ne jublu naa sama boroom tabaaraka wa taala ci taalif ay xasiida yoo xam ne danañu làmboo njëriñal jullit yu góor yëpp ak njëriñal jullit ñu jigéen ñëpp kon mbindum sëñ Tuubaa dafa doon loo xam ne lépp rekk njëriñ la képp ku bëgg a jëriñu njëriñ lu mat sëkk njëriñul àdduna ak àllaaxira booy jàng xasida yi euh, di ko sellal lépp loo ci bëgg ci lu baax suñ borom tabaaraka wa taala mën na la koo defal ndax xasida yi euh, lépp rek ay njëriñ la ñu baaxoo ànd ak yéen ci ay laaj yoo xam ne dañ koy toxalee ci biir mbindum sëriñ bi di leen indil ay bayit yoo xam ne kenn ku nekk ci mbokk yi teewlu ku yàlla dogal nga xam ci ban xat ci yan xasida lañ nekk rek da nga mën a jaar ci buumu jokkoo bi insha allahu taala comme nin ko baaxoo defee tey laaj bu njëkk bu ñu leen indil mooy wajaxal kitaabati ka mislal xajji wa sawmi wa salaati ahli najji kan moo xam ci ban xasida la nekk ñaareelu laaj bi mooy wajaal kitaabatiya min zal mi fawqa salaatin qubilat wa sawmi loolu mooy ñaareelu laaj bi ñaari bayit yooyu la ñuy laaj benn bi ci nekk ci ban xasida la nekk incha allah ci kanam suñu ubbiwee buumu jokkoo bi di ngeen mën a jaar ci 33 976 21 43 33 mbokk yi xam ngeen ne xasida yi dañoo làmboo ay taxawaay yu màgg lool làmboo ay jaamu yàlla yu màgg màgg lool gis ngeen Sëriñ Tuubaa mu wax ni wajaal makaati bi taquumu abada maqaama xajjin wa jihaadin lil ida nga xam ne dafa ñaan suñu borom tabaaraka wa taala foofu da ko defal sama mbind mu taxaw taxawaayu aj màkka taxaw taxawaayu jihaad ak noon yi ba faw nga xam ne kon jàng xasida dana tax nit ki ñu di ko bindal tiyaabay kuy aj màkka aj gonu nangu xam ngeen ne loolu jafe la waaye jàng xasida soo koy def dañu lay bindal tiyaabay kuy jihad ak non yi di la bindal kuy tiyaaba yi kuy jihaad ci yoonu yàlla sun borom tabaaraka wa taala motax mu ne bi taxuma abada maxaama hajjin wa jihadin lil ida mu dellu wax ni wajaal midadi wa xilaami qaa'ima maqaama jumlatal xuyuuri da'ima yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga defal ma sama daa ak samay xalima mu taxaw taxawaayu mboolem yiw yi mboolem yu baax yi lépp lu baax loo xam ne nit ki su ci nekkee di ca ami tiyaaba man caa amee fayub suñ borom man caa amee njëggalug suñ borom man caa amee ngërëmal suñ borom tabaaraka wa taala xasida dana taxaw taxawaay boobu moo tax mu ne wajaxal mi daal di wax xilaami xaa ima maxaama jumlatal xuyuri daa ima dañ koy taxaw taxawaayoo ci lu sax dakk kon nga gis na yow mi nga xam ne fàggu tiyaaba fàggu ay yiw mooy li nga bëgg bëgg suñ borom tabaaraka wa taala defal la euh, yiw yi bari fay bu màgg lool del jàng xasida yi su ko defee kon ñu war cee góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax su ko defee ñu fàttaliwaat leen laaj yi nga xam ne moom la ñu leen indil incha allah laaj bu njëkk bi mooy wajaxal kitaabati ka mislal xajji wa sawmi wa salaati ahli najji ñaareelu laaj bi mooy wajaal kitaabati min zal yawmi fawqa salaatin xubilat wa sawmi képp koo xam ne xam nga ci yan xasida lañ nekk rek incha allahu taala di ngeen mën a jaar ci 33 976 21 43 loolu mooy doon buumu jokkoo bi incha allahu taala ñu déglu Serigne Abdul Xaadir Jaañ ba ci kanam مغنية عن الحساب والقيل نفت كتابتي لغير عداه ولي قاد الحلاو والهداء نفت كتابتي لدى الأمواج من أحدق بي من الأفواج نفعتني بالمد قبل المد وقدت لي فوق المنى في الخط هب لي كون قلمي معلما تعليم من لك يقود العلماء هدى دليلة على كون الكتاب مربيا مرقيا بلا عتاب هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لسعادتي دم أبلي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لسعادتي دم اكتب ناقلا من الله ومن قلمه وفي حروفي لم أمن اكتب ناقلا من الله الحفيظ معناي الردوان العلي واللفيذ أجر كتابتي يفوق عند جملة ما به يباهي جند إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية إن كتابتي لدى أهل الكتاب لي سلبت نور اللسان والكتاب إن كتابتي عند الله تغذي ذوي الكفور والملاهي إن كتابتي عند المزبد ردا لغيري كل من لم يعبدي إن كتابتي في الجزائر إلي قادت أنفها الزغائر لو ختابي بخط مغجلي كل كتابة بغير وجلي كتابتي لي بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب كتابتي تزهده المرحور لغير النهو لتقود الحور كتابتي تدور تحت الحرج بين الكرام عابدي ذي الفرج كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتدي فيها نبيه يقل كتابتي توت مثابة السلو أني وسانني عن الدر الملو كتابتي قبلها ذو الأرج وقادها إلي رب الفرج كتابتي نابت عن الأعمال أصالحات لانتهت آمالي كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جهلها على شكور كتابتي لو أحب من كثير من المنى مزقاد لي در النثير كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ التربية الحمد لله جرجف سرين عبد الخادر جانتي سنو إنديكاتيك بنينك جاجف البباخ باخ باخ seen rajo Zik FM Mbacke 93 point 8 kàddu gi di bàyyeekoo fii ci Mbacke Bawol ngeen di teewlu jamono ji ci seen jotaay bii di ëttu xasida yi ngeen di ko ànd ak seen mbokkum taalibe bi Modou Thiaré euh, comme ni ñu ko waxee woon léegi rek xasida yi làmboo ay jaamu yàlla yoo xam ne jaamu yàlla yu màgg lan jaamu yàlla yu tedd lool lan euh, am na fu Serigne Touba bind wax ni euh, mbindam. mooy mbind mi nga xam ne moom la sun borom tabaaraka wa taala gën a sopp waaye mooy mbind mi nga xam ne itam moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gën a sopp ci mboole mbind gaa yu baax yépp nga xam ne lu dul alquran ak xadis xasida mooy mbind mi nga xam ne mooy mbind mi suñ borom tabaaraka wa taala gën a bëgg mooy mbind mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gën a bëgg moo tax moo waxoon ne li ya'lami naziru ان خطي الى الهنا احب خطي كيف كو خامني ياغي خول سمن بند نغا خامني موي بند مي يالا سن بروم تبارك وتعالى غنا بوغ ا أه، خطي احب للسكور الاكرم من خطي غيري والى المكرم فوف تام نغي في خامني بندم موي بند مي سن بروم تبارك وتعالى غنا بوغ waye itam moy bind mi nga xamne mom la sallallahu alaihi wasallam gëna bëgg wax na ko ci ay barab Euh, loolu di wane xasida yi moom mbind la moo xam ne mbind mu màgg lool la mu nekk loo xam ne itam mooy mi liggéeyub sëriñ bi euh, ni ñu koy faral di waxee rek liggéey bu màgg bu tedd bi nga xam ne moom la liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba yonent bi gërëm ko saxaaba yi gërëm ko waa ahlu badrin gërëm ko gaa yu baax yëpp te am gërëmal yàlla suñu borom tabaaraka wa taala gërëm ko liggéey boobu lépp sëriñ bi mi ngi ko def defee ci mbindim ci mbindam ci xasa xasidaam yi loolu tam dafa doon loo xam ne day wane ne rek xasida yi lu màgg la dégg ngeen ma wax ni bi xurmatil Mustapha man sirtu xaadimahu bin nazmi wan nashri sajan summa mizaana kon dañuy dañuy dañ ci xamee ne lépp rek Euh, mooy xas yi day mu doon liggéey bu màgg lool nag ba taxoon mu waxoon ne képp koo xam ne euh, yaakaar nga ne mas ngaa liggéeyal Serigne Touba liggéey bu toll ni bi ma ko liggéeyal man xaadima rasul maa ngi lay xamal ne sa maanaam sa njortu nax na la waaye moom mooy ki ko liggéeyal liggéey boo xam ne euh, kenn mësu ko koo defal kenn mësu koo defal yonante bi alayhi salaatu wasalaam te kenn dootu ko ko defal ci kaw suuf moo tax mu ne man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anni khadim bima wana an mislihi kullu khadim xaddamtuhu bi xidamin la saaniya laha min khidami kon liggéeyal na ko liggéey boo xam ne benn liggéey la boo xam ne amul ñaareel kon nag loolu dafa doon loo xam day wane ne liggéey bi liggéey bu bu bu màgg la suñu borom tabaaraka wa taala nangul ko ko gërëm ko def ci ay ngëneel def ci ay yiw yoo xam ne képp koo xamante ne yaa ngi koy jàng rek euh, yàlla suñu borom tabaaraka wa taala dana ko defal ndax dégg mu wax ne yàlla na nga jégal mboolem koo xam ne dangay jàng sama xasida waaye yemul ci ñaanal kiy jàng xasida gi njéggalu suñu borom tabaaraka wa laa dafa àgg ci ne képp koo xam ne da ngay bind xasida itam yow suñu borom na nga jéegal kooku ba tey mu wax ne itam képp koo xam ne dafay euh, déglu xasida yow suñu borom tabaaraka wa taala nañ ko jéggal waaye képp koo xam ne dafa ne jàkk sama mbind di ko xool yow suñu borom tabaaraka wa taala nañ ko jéggal kon loolu day wane ne xasida yi moom euh, mënees na cee amee njéggalu suñu borom tabaaraka wa taala ci fànn gu nekk fànn gu nekk rek nit ki mën na ci amee njëggaluk sun borom te njëggaluk sun borom nag euh, moom la ñuy sàkku ñun ñëpp ndax euh, jamono jii ñu toll fi jamono toll nga xam ne yàqu-yàqu jamono yi ak yàqu-yàqu jikko yi nit ki xëy ba ngoon te defut lu muy jéggaloo suñu borom tabarak wa taala lu jafe-jafe-jafe la moo tax jaam bi war na di góorgóorlu saa su nekk rek di jéggalu suñu borom tabarak wa taala kémtalaay kàttanam ngir yàlla mën koo jéggal ay ay bakkaaram xasida nag jàng gi dana taxa am njéggalug suñ boroom waaye déglu gi dana taxa am njéggalug suñ borom bind gi dana taxa am njéggalug suñ borom ne ko jàkk say bët di ko xool itam di ci bànneexu ci mbindum sëñ tubaa donte xamoo ci lenn loolu tam dana taxa am njéggalug suñ borom suñ tubaa moo ko bind wax ne wax wax fir kulli kaatibin aw qaariin aw saamiin aw naazirin yàlla na nga jéggal képp koo xam ne day bind li kulli kaatibin aw qaari'in wala kuy jàng aw naazirin wala kuy xool aw saami'in wala kuy déglu kon loolu nekk na loo xam ne dafay wone ngëneel yi nga xam ne xasida yi làmboo nañ ko ak seeni màggaay naka noonu itam comme ni ko li ñu koy nettale ci jamono yi nga xam ne sëriñ bi mas naa wax ne kenn ku nekk ci yéen na ma indil xasiida ga mu yor te bu kenn andi xasiida ga mu moomul ba ñu ñëwee mu ne leen dama leen a bëgg a wax fa xasiida yi di mujj ak yéen daldi ne ku faatu ci yéen ban koy waajal mboolem xasiida gu mu amoon mbaa mu mokkal ko ci dënnam ba demee ba faatu bañ dugal ko ci biir bàmmeelam xasiida yooyee dañuy nekk ak moom ci biir bàmmeelam di ko wettali ba keroog muy dekki mbokk yi loolu bokk na ci li nga xam ne xasiida mënal na ko euh, doomu aadama kon nga gis ne jëmmi am xasiida fexe ba wecceeku xasiida donte génn xasiida la euh, nga wecceeku ko teg ko ci barab bu laab te fonk ko loolu rek dana la amal njëriñ fa nga xam ne foofu ngay gën a yittewoo ndimbal fa ngay gën a yittewoo ka la xettali euh, loolu bokk na ci li nga xam ne dafay wone ngëneel yi nga xam ne xasida yi làmboo nañ ko kon 33 976 21 43 mooy bu mu jokkoo bi ngeen di jaar ngeen mën a agsi 33 976 21 43 mooy bu mu jokkoo bi insha allahu taala seen émission ëttu xasida yi fii ci Zik FM bàkke 93.8 ñu àndaat ak Serigne Abdoul Khadir Diagne te fàttaliwaat leen laaj yi rek laaj bu njëkk bi mooy wajaxal kitaabati kamis lal xajji wa sawmi wasalaati ahli najji ñaareelu laaj bi mooy wajaal kitaabatiya min zal yawmi fawqa salaatin qubilat wa sawmi ngir képp koo xam ne xam nga ci yan xasida lañ nekk rek incha allah ngeen mën a jaar ci 33 976 21 43 33 976 21 43 mooy buumu jokkoo bi incha allahu taala 23h moo jot ba tegal ñaari simili ca Touba jannatul mahwa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 jërëjëf euh, Serigne Gana Mesre Maxtaar ci njëriñ yoo am solo yooyu nga xam ne indi nga ñu ko ci xasiday Serigne Touba yi 33 976 21 43 mooy bu mu jokkoo bi 33 976 21 43 laaj bu njëkk bi mooy wajaxal kitaabati kamislal xajji wa mi wa salaati ahli ji ñaareelu laaj bi mooy euh, wajaxal kitaabati min zal yawmi fawqa salaatin qubilat euh, wasaw sawmi ñu jël mbokk mu nekk ci ligne bi incha allah mbokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. sëñ Mbacke Mbaye Touba Darou Manane. suñu premier auditeur. allez ziare. na ngeen def waay. di am mbégte bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. xanaa bay ñu ma jëlee laaj ñu ci Nour Bayrou bi. di ko def ñu ci Jaalibatul Maraaxib. Jaalibatul Maraaxib. ñu ngi bëgg waa Louga bi ñëpp nag. jërëjëf jërëjëf. léegi leeral ci xëy bi am na solo lool. jërëjëf sëñ Mbacke. dana gën a soññ sama classe bi bu ñu gën a mën a góorgóorlu bu baax a baax. ndeysaan jërëjëf Mbaye. ñaan suñu sëriñ nag sëriñ Mbacke dafa saar xalifa beeru mu naan. Mm-hmm. amiin. yàgg ci lool lool daan rek wér. amiin yaa rabbal alamin. wa ñaanal mboolem wa ahlu xasida ñëpp. amiin amiin amiin amiin. ñu ngi ziare bu baax a baax a baax. jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf. waaw di ziare ñëpp rek jaajëf sëñ Maodo. jërëjëf sëñ Mbacke. ñu ngi koy sant bu baax a baax sëriñ Mbacke mbay doon ñu fii ci diwaanu Touba Daarul Mannaan di ko nuyu di nuyu mboolem kuy déglu rajo Zik FM foofee ca diwaanu Touba Daarul Mannaan 33 976 21 43 mbokk asalaamaaleykum sëñ bi na nga def alhamdulilah waaw na ngeen def alhamdulilah ñu sëñ lu Mbacke <laughs> ñu ngi lay ziar bu baax ana waa Ndindi tabaarakallah waaw. waaw. waaw. maa dégg mu wax ni wax ni lii may dégg. waaw. te wax rek la déglu nga dëgg la koy dëgg la ndeysaan. bàyyi xel di ko jégalu ci rek ci rek ci nga xam ne si dinaa koy def lay wax yi. ndeysaan macha allah. ay ñàkk mari doomu aadama la. jërëjëf jërëjëf. jàpp naa si doom jàpp naa si bés jàpp naa ko xayma. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. amiin yaa rabbal alamin. maa ngi déggee mboolem taalibe yi. ndeysaan jërëjëf. waaw ñëpp wax waaw ñëpp wax. jërëjëf lépp lu may wax rek dafa laaj. wallaay yaay xam-xam baa leen. na wér na wér na kay. wallaay laa si xam maa am na solo lool lool lool jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf من فليس لامرئ رام الوصول لربه بها مخلصا الا وهذا المقاصد amul wul sen cem su bëgg egg ci yàlla jàpp ci xasida yi sellal ko lu dul yegg nga ci yàlla xam ngeen ne sëriñ bi daana wax ne daanaa yegg ci benn pays ci pays suñu borom yi gestu gis ca kenn ci fere yi bu ma laajee lu ko indi fii rek danañ bu xasida sax kon ndake xasida yi day wommat nit yóbbu ko ci borom jërëjëf sëriñ Gana mesre Maxtaar mu nekk lu am solo lool xasida yi day wommat nit ki yóbbu ko ci boroomam tabaaraka wa taala sëriñ Tuubaa moo ko wax moo wax ne xattiya yusilu murida tarbiya lisil jalaali wa murida tarxiya mbokk asalaamaaleykum bismillah bismillah 33 976 21 43 mooy bu mu jokkoo bi 33 976 21 43 ngeen di déglu seen rajo Zik FM Mbacke 93.8 ci fréquence bi 93.8 ca YouTube ba les grands secrets en wolof ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ngeen ñi nga xam ne yéenay topp ci YouTube bi di les grands secrets en wolof di ziar bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo koy déglu ci ci rajo Zik rajo Diso FM rajo Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. ci application bi nga xamantene mo nek Play Store wala App Store ñom ñep ñi ngi leen ci ndokkel te di leen jaajeufal ci and bi ngeen di and ak ñun ci seen radio Diso FM radio Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñu andat ak Serigne Abdoul Khadir Diagne ba ci kanam ci suñu indicatif 33 976 21 43 ñu jël mbokk mu nek ci ligne bi euh mbokk assalamu alaykum Serigne bi na ngeen def bismillah. kon nag sëriñ Abdul Xaadir Jaañ bismillah وجعله عندك وعند المصطفى صلى عليه بالسلام الاستفاء مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب وتكفني به أذى الشيطان إن غت ربي ولد الأوتان يا الله يا رب الورى يا مغني اجل نظامي عن سلوك مغني نابت كتابتي عن النوافل ولا أرى عن الرداء بغافل نابت كتابتي لدى الله الجميل عن العبادات وأنه لا تميل نابت كتابتي عن السلاه والجولان لذوي السلاه نابت كتابتي عن القتال وذهذه دري إلى أقتالي نابت كتابتي عن المدافع بفضل ربي كان لي بالمنافع نابت كتابتي لدى أهل الكتاب عن السيوف والرماه لا عتاب نفت قصايد اللعين والخيل مغنية عن الحساب والقيل نفت كتابتي لغير عداه وليقاد الحلاو والهداء نفت كتابتي لدى الأمواج من أحدق بي من الأفواج نفعتني بالمد قبل المد وقدت لي فوق المنى في الخط هب لي كون قلمي معلما تعليم من لك يقود العلماء هدى دليلة على كون الكتاب مربيا مرقيا بلا عتاب هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لسعادتي دم هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادتي دم اكتب ناقلا من اللوح ومن قلمه وفي حروفي لم أمن اكتب ناقلا من اللوح الحفيظ معناي رضوان العلي واللفيظ أجر كتابتي يفوق إنده جملة ما به يباهي جند إن قلامي بالنبي هدية إلى جنان من علاه بادية إن قلامي بالنبي هدية إلى جنان من علاه بادية إن كتابتي لدى أهل الكتاب لي سلبت نور اللسان والكتاب جرجسري عبد الخادر جان تنجاني مع مسلمي 33 976 21 43 33 976 21 43 mooy buumu jokko bi comme ni ko sëñ Abdoul Xaadir Diagne waxee léegi rek te sëriñ bi bindee ko noonu xabliya kaw na xale mii yan xalu min lawxika yaa man lii li saadati damin nga xam ni foofu sëriñ bi dafa ñaan sun borom tabaraka wa taala ni ko xabliya kaw na xale xalami yan xalu min lawxika yaa man li saadati damin ñaan yàlla ngir suy bind mu mën a toxalee ca lawxul mahfuuz ca alliway sun borom tabaraka wa taala ba borom defal ko ko mu bind ko wax ne aktubu naaqilan min al lawxil xafiis maxna ya ridwaanul ali wal wa aleykum salaam wa aleykum salaam wa rahmatullah yal na yàlla nangu ziyaara yal nañu ko yàlla boole defal. jërëjëf tur bi ak sant bi ak fay waaye nag tey la ko yàlla dogal. jërëjëf waaye jërëjëf. ñu ñaan daal suñu borom fasañu kóllëre gi. amiin yaa rabbal aalamiin tur beeg fooy wootee. sa numéro nag moom kii yoon naa ko de bu dee jàppandi na. bu soobee yàlla incha allah. numéro bi. waaw boo boo coupé dinaa dinaa ko joxe ci kàttanu yàlla. Ah? ma ne soo coupé rek dinaa ko joxe incha allah noo tudd ak noo sant. waaw incha allah waaw. tur weeg fooy wootee. Mhm. Ah? ma ne tur wi naka la. Xadi Samb Daaru Marnaan. soxna Xadi Samb. Daaru Marnaan waaw. jërëjëf Samb jërëjëf jërëjëf jërëjëf. lii de xam naa problème réseau la li nga wax de day sóor. dëgg la kay ma ne xam naa boo coupé rek incha allah danaa joxe numéro bi ci kàttanu yàlla. Euh, jërëjëf jërëjëf mel na ni kon déggante bi leerul lool lool ñu ngi koy jégalu bu baax a baax mën naa euh, xam naa jafe-jafe réseau doon comme ni mu ko waxee noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax te ñaan suñu borom tabaaraka ko taala mu dolli ñu tawfeex soxna Xadi Sàmb fële ci diwaanu Touba Daarul Mannaan di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi teewlu rajo Zik FM mbokk asalaamaaleykum euh, asalaamaaleykum. kooku itam déggante wu ñu ngi koy jégal bu baax a baax laaj bu njëkk bi mooy wajaxal kitaabati kamislal xajji wa sawmi wa salaati ahli najji ñaareelu laaj bi ñuy laajte ci yan ci ban xasida la nekk mook laaj bu njëkk bi mooy wajaxal kitaabati ya min zal yawmi fawqa salaatin xubilat wa sawmi soxna xat yi doon na laajte numéro bi kon bismillah 77 335 14 14 incha allahu taala 77 335 14 14 ngeen di déglu seen émission ëttu xasida yi fii ci seen rajo Zik FM Mbacke 93.8 23h moo jot ba tegal fekki simili ak ñett ca Touba Ñanka daaray Serigne Abou Guèye. yaa ngi jàng yaa ngi jàng wa kaana xaqan alaynaa nasrul muminin doo ñàkk dépense yaa ngi jàng wa kaana xaqan alaynaa nasrul muminin ñeen fukki bunti kër ak benn yi la wër yëpp yaa yor seen kaaraange waaye kii jàng xasida gi mun na ala xayri isil huruf mi maa yóbbu zan min max ku koy jàng ku ne defal ko lu kawe njortam kon boo bëggee di am njël lu sax te doo ko ñàkk bëgg am na kaaraange del jàng ba kan xam jërëjëf sëriñ Gana Mesere Maxtaar ba tey ci ngëneelu xasida ak wakkaana xaqan alayna nasrul muminin li nga wax day yaakaar naa ne euh, ku nekk yittewoo te xasida ak wakkaana xaqan alayna nasrul muminin def koy joxe kon euh, ku yi bu taqoog moom euh, asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. ñu ngi sant waaye na yàlla na nga ziar. yow nan nga tudd. Moodu Thiaré. Moodu Thiaré Ibrahima Daw di. noo tudd sëñ bi. bismillah. maa ne. waaw. man maa Ibrahima Ndaw di. sëñ Ibrahima Ndaw. bismillah. ndeysaan bismillah. jafe-jafe réseau la bisimilah. waaw. sëñ Ousmane Gueye maa ngi ah, jërëjëf jërëjëf sëñ Ibrahima. jërëjëf. Mhm, bisimilah sëñ bi. ndax yaa ngi may dégg. ndeysaan ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax suñu baay jooju sëñ Ibrahima def naa ndaw la wax.

ليتوجهت ورب المسلم إلى الذين ظلموني قبلهم نهت مدارتي كذاك الكبل خسيدي رك salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. demal sëñ bi demal ba ci kanam sëñ Babacar. ñoo ngi ziar bu baax. demal ba ci kanam alhamdulilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah na ngeen def. suñu wàllu jaay ñooy ziar bu baax sëñ sëñ Babacar na ngeen def waay ñu ngi lay delloo ziar. ndawali Babacar ñooy ziar bu baax a ngi ci di ah jërëjëf jërëjëf mënoon ngaa dem ba ci kanam de neex na de. Ah? ma ne neex na de <laughs> man <laughs> damay bañ a gàttal <laughs> rek. ndeysaan solo damay bi rek ay ñooy ñooy siyaar bu baax a baax a baax di rafetlu jotaay bu baax. yal na yàlla nangu siyaar am waa kër gi. ñëpp ñëpp ngi fi ñu ci jàmm. ba yéen a ci jàmm bu baax. wax dëgg am na solo lool lool lool lool lool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di ñaan suñu borom gën a yëgal taxawaay bu baax. amiin amiin amiin amiin xam amiin yaa rabbal alamin te bokk lépp. barke borom bu baax si day. amiin amiin yaa rabbal alamin ñu ah, laaj bi laaj bi njëkk bi moom dafa ñëw réer waaye ñaareelu laaj bi moom. Mhm. moom ci xasayid Nuuru Daarayni. Nuuru Daarayni. waaw Nourou Darayni. allah incha allah incha allah di rafetlu jotaay bu baax a baax. jërëjëf Diop jërëjëf jërëjëf. ana di leeral ci waxaana xaqan. waxaana xaqan ndeysaan wallaay ndeysaan. ci xëjee tamit eh, di soxla dégg nañ di waxtaan ba ci kanam incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mu ne urjuzati yahtazu arshu rabbi biha wa rabbi allahu xilli xibbi mu ne samay way. aras da ciy jaayu te sun borom ci sama way yooyu laa nekke xaritam nekke ab soppeem jërëjëf sëriñ Xaadim Mbàkke Taïf jërëjëf sëriñ kër Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di wootee fële ca diwaanu Touba Madiana mbokk euh, waaleykum salaam Mbàkke Balla sëñ Mbàkke Mbay Touba Darma Ngor sëñ Mbàkke Mbay na nga def waaw ñaari bër yëpp ñu dama koo jaawale woon ak euh, dugub la nekk jaajëfal baraka waaye ñaari yëpp ñu ci nuur dayam laaj bu njëkk bi mooy wajaxal kitaabati kamis lal xajji wasaw mi wa salaati ahli najji la ñaareelu laaj bi mooy wajaxal kitaabati ya min zal yawmi fawqa salaatin xubilat wa sawmi <laughs> waaw ba ci njeexantalu jotaay bi incha allah jërëjëf mbay ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Mbacke mbay di jaajëfal bu baax a baax sëñ Babacar Diop mi nga xam ne moo doon woote léegi doon woote fële ca diwaanu Touba Madiane di ziare waa kër ga bu baax a baax a baax ci mel ni euh, première dame madame Thiaré ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziara soxna Ndeye Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mu ngi foofee ca kër ga ku ci mel ni euh, suñu yaay euh, mère Sarr moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal foofee ca diwaanu Touba Madiane waaye di. ziara Cheikh Anta Gueye Serigne Cheikh Anta Gueye ñu ngi koy jaajëfal di nuyu bu baax a baax mbooleem koo xamante ni rek yaa ngi déglu jamono yi ñu toll Serigne Abdoul Khadir Diagne xasida mi nga xam ne moom la ñuy àndal ci émission bi mel na ne mi ngi ñuy teewlu ca YouTube ba ndeysaan mi ngi macha allah yal na yàlla barkeel jërëjëf Diagne ñi ngi lay delloo ñaan yi bu baax a baax di ñaan suñu borom mu nangul nu lépp yow moom xam naa <laughs> jombul dinañ am bés boo xam ne jël ci buumu joko bi comme nuñ ñu defoon ci suñu jotaay bi weesu ci Serigne euh fallu tin Serigne abdou khadi Diagne professeur anglais fali ci diwanu Dakar Pikine ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax baax fan yi ci ginnaw sax euh, njàng mu am solo lool nga xam ne mooy fulkul masfun nga xam ne diwaanul fulkul masfun lépp euh, jàng na ko njàng mu mucc ayib waaye njàng moo xamante itam njàng mu neex lool la xam naa képp ku yàlla suñu borom dogal ba nga yittewoo ko rek moom soo ma ci sama numéro danaa fexe ba nga am ci kale yu am solo yooyu nga xam ni moom lay baaxee jaamu yàlla yi imam infographiste moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax bokk na ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy teew mi ngi ñuy teewlu macha allah sang bi yàlla na lépp barkeel amin yaa rabbal alamin sëñ Pape Malick si moom tam ñu ngi koy jaajëfal bu baax bokk na ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi rafetlu jotaay bi ci internet bi ku ci mel ni euh, soxna Diop mbenn jóob soxna mbenn non la ko bindé ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax Ibrahima Gueye macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax mom tam Waali Ndiaye mom tam ñu ngi koy jaajëfal bu baax Serigne Bassirou Diouf khassida mom tam mu bokk ci daayira Sifa Usudur don ko xamne sa su nekk day bàyyi xel jotaay bi waaye suñu xel day dem ci Serigne abdul Ahad Gueye Birane sëñ Abdou Lahad Guèye mu suñu bàyyi bàyyi Birane Guèye ñu nga fële ci diwaan bu Touba Jannatul Mahwa moom tam di koy bàyyi xel jotaay bi saa su nekk ñu koy nuyu di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñooy déglu rajo Zik FM Mbàkke foofee ca diwaan bu Touba Jannatul Mahwa ñu àndaat ak sëriñ Abdoul Xaadir Diagne ba ci kanam inna kitabatiya inda allahi tuxdi dawil kufuri wal malaahi inna kitabatiya inda al musbidi ردا لغيري كل من لم يعبدي إن كتابتي في الجزائر إلي قادت أنفها الزغائر لو ختابي بخط مغجلي خزني كتابة بغير وجلي كتابتي لي بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب كتابتي تزهده المرحور لغير النهو لتقود الحور كتابتي تدور تحت الحرج بين الكرام عابدي ذي الفرج كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتدي فيها نبيه يقل كتابتي توت مسافة السلو أني وسانني عن الدر الملو كتابتي قبلها ذو الأرج وقادها إلي رب الفرج كتابتي نابت عن الأعمال أصالحات لانتهت آمالي كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب كتابتي مشكورة عند الشكور وإنه جعلها على شكور كتابتي لو أحب من كثير من المنى مزقاد لي در النثير كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية كتابتي من له تنقلي وقلمي من فيد ربي ينقلي كتابتي للأرش والكرسي و والله مع قلمه القدسي كتابتي تبشر المشفعة وعند إبليس تفوق مدفعا كتابتي am solo moomu kitaabati tubasirul musafaa wa inda iblisa tafuuxu midfaa kon sëriñ bi mi ngi xamli foofu ne mbindam day bëggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mbindam moo gën kawe kënu ci iblis nga xam ne mbindam sëñ tubaa dafay faagaagal iblis moo tax mu wax ne mbindam day bëggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam te moo gën kawe sax bomb ci iblis kon loolu nekk na loo xam day wane ne xasida yi mbokk yi lu am doole la loo xam ne dafay dàq saytaan yi koy jàngee wala ñu di ko fa bindee seytaani moom du fa jege gis ngeen mu wax ne iza katabtu aw qaratu xarfa xustu munan tuudau zaakal xarfa waaye wax na itam ne iza katabtu aw qaratu har wala iblisa fawran maa man taqa wala moom mooy bi ñu jublu woon indi nga xam ne dafa wax ne saa yu bindee mbaa mu jàng iblis bu fekkoon mu nekk ci côté yooyu moom nee na dafay daw jóge fa ci num mu gën a gaawee isa katabtu aw qaratu har wala iblisa fawran ma man taxaw wala del wax ni isa katabtu aw qaratu xarfa xustu munan tuudaau zaaka al xarfa suñ bi nee na saa yu bindee wala mu jàng lu toll ni benn araf benn araf bu mu jàng mbala mu bind ko yàlla sun borom tabaraka wa taala def ko ci defal ay xewul defal ko ci ay may yo xamne day mujj bëri ba day mujj jël yoyu yooyu wat ko ci arafa ngir ku ko jàng man ci am dara kon lol tam nek na lo xamne day woné khasida euh amul li ci nit ki monta am waa lu am solo la lu mata fanku la lu mata jàng la lu mat di bëri la lu mat di bëri la bu baakha baakha baax ndax khasida tudd yàlla suñu borom tabaaraka wa taala la maanaam zikkar te tudd yàlla yàlla moo ñu ko digal ci alquran moo wax ne fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfuruun moo tax moo wax ne zintu lahu xasaidas xasaaidal iskaari wasaana umriya anil inkaari waaye yàlla am na foo xam ne ba mu ñu digalee ñu di ko tudd itam def caa dendale wax digal ñu ñu di ko sant moo tax bu mu ne zintuluhu xasaa idal iskaari aw xasaa idal azkaari wasaana umri anil inkaari daf caa teg ne zintuluhu xasaa idal sukuuri wa innahu fi abadin maskuuri am na xasida yoo xam ne ay xasiday zikkar la am ci xasida yoo xam ne ay xasiday sant yàlla sun borom tabaaraka wa taala la te suñ borom ba mu ñu digalee ñu di ko tudd daf ñoo dolli euh, wax nu ngir ñu di ko tudd lu bëri wazkuru llaha kasiran laallakum tuflihun da leen tudd yàlla lu bëri ndaxte ngeen texe dem ba wax ne wa zakirina allaha kasiran wa zakirat aadallahu lahum magfiratan wa ajran aziman ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla sun borom tabaraka wa taala te di ko tudd lu bëri mo xam muy góor wala muy jigéen yàlla dig na leen ëllëg njéggal ak fay bu mag ahaddallaahu lahu maxfiratan wa ajran aziman sëriñ Moustapha Sourang ñu ngi lay nuy bu baax di la jaajëfal yow tam ci topp gi ngay topp liggéey bi sëriñ Moustapha Sourang fii ci Touba daarul minnan daayira soppay sëriñ Muntaxa Mbakke di daayira bi nga xam ne mooy taxawu daara yi Serigne Mountakha Mbacké yi ñu ngi koy jaajëfal bu baax di nuyu sëñ Saliou Sorang ak mboolem waa daara ñëpp sëñ Xaadim Top moom tam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax bokk na ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci internet bi kon loolu mbokk yi bokk na ci li nga xamante ne dafay wane nga ne xasida yi 33 976 21 43 mooy bu mu jokkoo bi 33 976 21 43 mooy bu mu jokkoo bi incha allahu taala seen émission ëttu xasida yi 23h moo jot ba tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñaar ca Touba Daaru Xuddoos sëñ Touba ne na xasiida naaru góor la woo xam ne dañ ko wulli ba mu nopp àjjana la jóge di naaru góor wu nooy boo ñëwee war mu yóbbu la kitaabati qaamat maqaama sa'i عبادي من حفظني بالرعي كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد كتابتي يفوق شيق التربية بلا تفخر وشيق التربية كتابتي مثل السيوف والرماح وردا لمن به قاد yéen a ngi déglu seen émission animation xasida ak Serigne Modou Thiaré yéen a ngi déglu seen émission animation xasida ak Serigne Modou Thiaré bati busharatan fi abadi li jundi rabbil ghalibin al بديع كتابته لدى الشكور شكرت ورفعا لعرشه وانتشرت كتابتي قبل لدى ذوي القمور ساق لغير مكائد الأمير كتابتي ليست تزال بشرى لمن على فوق البرايا بشرى كتابتي قائمة مقاما شيخا مرق يهب المقاما وبكتابتي له قن ما يدي مسرة لديك يا باقي المزيد جرجف سيدي عبد الخادر نجل مبوك من تشلين بمبوك السلام عليكم سانت يالا بو باخ ma jàmm sant bu baax ñi ngi ala waa kër gi alhamdulilah ne ana waa kër gi. ñu ngi sant bu baax. maa jàmm rek. tabaarakallah. na ngeen doo sant yàlla. ah yaa ngi ci lu neex de. jërëjëf jërëjëf. yaa ngi ci lu baax it. jërëjëf ñu ngi. ki doon woote sànq mooy Ibrahima Ndaw den bi. ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ah ma doon woote rajo kii. Ucab ah. FM. maanaam ci fajar gi wax sa xalaat. dëgg la ndeysaan. waaw léeg-léeg da nga ko ciy noonu muy woote. jërëjëf ñu ngi. waaw waaye rajo bi da koo bëgg lool. est waaw maanaam bu mu ma ciy déggee ma ciy wax rek moom moo ne da cee topp di ci wax moom itam di wax lu baax. moom it bëgg nañ ko ngir bëgg mu bëgg jotaay bi. waaw ku baax a ngi noonu di wax dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf yal na ko yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbal alamin moom ci am rek nga koy xamee. wallaay ndeysaan. waxasee wax rek nga xam li mu doon. Mhm. ah man bokk. dëgg la. waaw kon nag yàlla ko yàlla defal jàmm. fa mu nekk rek amiin amiin yaa rabbal aalamiin. waaw yow itam yàlla ñu bokk lépp amiin koo fi nekkal rek. amiin yaa rabbal aalamiin ngeen fi nekkutoon rek dara du sotti. ndeysaan jërëjëf maanaam duñu wétlikaay yi comme yi ngeen di wax ni duñu ci xam dara. ndeysaan jërëjëf. waaw te lépp suñu bàmbaa waral lépp. jërëjëf jërëjëf. waaw xasida mi nag ku ci jàpp moom. Mhm. te léppay baax rek. jërëjëf ndax ñun loolu loolu la ñu fa bàyyi. walaay ndeysaan. waaw loolu jubóog suñu borom ba suñu borom séddu ko ko. Mm-hmm. jox ko ko. Mm-hmm. léegi mu dem dëdd ñu bàyyi ñu fi nag léegi ñu nekk ko. ndeysaan mu doon suñu jàmm. Mm-hmm. kon lépp lu mu doxee woon rek ak lépp lu mu def rek ñun ñoo taxoon. dëgg la kon nag yàlla na ko yàlla defal ci lim na defal bu baax a baax. amiin yaa rabbal alamin. waaw xasida yi nag ku nekk moom sa xol day baax de. waaw da nga yéene li nga bo yéene sa bopp rek nga yéene ko keneen. yërmande xolub yërmande mhm. waaw bu ko defee rek loolu la suñ tubaa bëgg ci xasidaam yi mhm. waaye boo koy jàngit wëlbatiku sa xol ñuul kukku daal nga nga nga wëlbatiku sa mhm. xol bon ndeysaan wax dëgg yàlla suñ tubaa wu ko noonu maanaam loo yéene sa bopp daal yéene ko sam nawle rek bu ko defee ñun ñëpp muy jàmmoo def fa di ree rek bokk ndey bokk bàyyi te yéenante jàmmoo day boole suñu lépp muy benn jërëjëf jërëjëf ko suñ tubaa bëgg wallaay dëgg la kon yàlla def jàmm rek amiin yaa rabbal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 danañ koy jàng te di ko sellal امتداد ذي التعظيم لقلم امتداد أرش الله مع إباق كل جان الله jërëjëf euh, si ñing ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax ci participation bi ak kàddu yi am solo yi si ñing ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax fële ci diwaanu Touba Seexew ga di jaajëfal Serigne Gana Messere Maxtar waaye di jaajëfal bu baax a baax tamit Serigne Moustapha Mbacke ibnu Serigne Abdoul Khadir Mbacke ci kàddu yu am solo yi nga xam ne moom lañu dénk. kon sëñ Tuubaa mbindam mi fi mu ñu féete buñ ko xamoon danañ koy jàng te di ko sellal. Euh, mu nekk kàddu yi am solo lool ñu ngi koy. ziyaara di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér naa mi ngi ko doon yëkkati ci journée xasida bi nga xam ne waa daaira Sifa Usudur Facebook ñi ngi ko doon amal ci atum 2017 mu nekkoon waxtaan wu am solo lool 33 976 21 43 muy bu mu jokkoo bi noonu la ñuy def sax di ziyaar mboolem mbokki membre u daaira bi yoo xamante ni rek jamono ji ñu ngi teewlu rajo bi ku ci mel ni sëñ Abdou Lahad comme ni ma ko waxee léegi rek euh, auditeur la buy bàyyi xel rajo bi saa su nekk rawatina jotaay bi nga xam ne mooy ëttu xasida yi fee ci diwaan bu Touba Jannatul Mahwa ci mel ni jëwriñ sëriñ boobu Matlabul Fawzayni fale ca diwaan bu Touba Tawféex waaye sëriñ Mor Ndiaye mu nga fale ca diwaan bu Touba Daarul Xuddoos seriñ Mor Talla Ndiaye Taysirul Asir di ko ziar fale ci diwaan bu Dakar soxna Mame Diarra Guèye Taysirul Asir waaye waa ahlu mafatixul bisri ku ci mel ni sëriñ Cheikh Sarr bisri soxna Farja bisri euh, soxna Maguette Fall bisri sëriñ Seydina Diop bisri ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal rawatina jëwrin yi nga xamante ne ñoo feete foofee ca diwaanu ndakaaru sëriñ Baye Aline Guèye jëwrin ku ci mel ni suñu yaay soxna maam Asta Walo Cuun euh, bu dee suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fële ca diwaanu Thiès euh, sëriñ Dongo Fall jëwrin sëriñ Cheikh Sall ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax suñu mbokk yéen nekk ca diwaanu Kaolack jëwri sëñ Ibrahima Niang ak euh, soxna Awa Ngom bu ñu leen jëlee nuyooyu rek teg ko ci seen loxo dinañ ko mën a jottalil mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nekk foofee ca diwaanu gox yu tedd yooyu nga xam ne moom laa lim waaye diwaanu njaareem sëñ alxaaji dem ak mboolem ñoom fa nekkal ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ak mboolem fu am membre si faaw si dur mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew 33 976 21 43 mooy buumu jokkoo bi incha allah 33 976 21 43 di jaajëfal tam bu baax mbokk yi nga xam ne ñooy ñuy topp ci fi nga xamante ne maanaam mooy TikTok bi ba ñu tàmbalee jotaay bi ba léegi gis nañ ne mbokk taalibe yu bëri ndeysaan ñu ngi fay topp jotaay bi kon yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci TikTok bi tam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di fa seetaan émission bi en direct ñu ànd ak Serigne Abdoul Khadir Diagne ba ci kanam 33 976 21 43. إذا كتبت أو قرأت قادا لي البديه فله فانقادا إذا كتبت اهتز عرش الملك واهتز بالتسبيح كل ملك إذا كتبت اهتز عرش الملك واهتز بالتسبيح كل ملك إذا كتبت اهتز عرش ربنا واهتز جند ذي العزيز في البناء إذا كتبت اهتز عرش ربنا واهتز جند ذي العزيز في البناء إذا كتب تهتز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب آه، سيرين توبا شيخ أحمد بامبا خادم رسول مينغي خامل نسا يوبيندي آه، أرس دي جايو واي ملائكة يتم دانوي تودو يالا دي سابال دي مغل مبندوم سيرين توبا شيخ أحمد بامبا خادم رسول نخمني مبندوم سيرين توبا دفا دون مبندوم وخمني Euh, day jaayiloo aras waaye di tax malaayka yi di di ko màggal di tudd yàlla suñu borom ngir màggaayu mbindam ñu jël mbokk mu nekk ci bi mbokk asalaamaaleykum sëñ bi na ngeen def alhamdulilah na ngeen def ana waa Casamance tabaarakàllah jërëjëf آمين يا رب العالمين جرجف واي جرجف جرجف جرجف آمين يا رب العالمين جرجف جرجف السلام عليكم ورحمة الله فاتلي ما jërëjëf jërëjëf. xasida bi dañuy xamal màggu suñu borom ga ak tedd ngaam ja ak nun ko war a jaamoo suñu kem kattan moom xasida xasida bi dañuy xamal màggu suñu borom ga ak tedd ngaam ja ak nun ko war a jaamoo suñu kem kattan moom xasida xasida dañuy xamal gënu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lañ ko war a royee ca la yoon may ak royee moom xasida xasida dañuy xamul nun war a fonki sëriñ bi ak nun war a fonkantee nun taalibe yi moom xasida bokk na ci li gën a mën a may xol bu set ak fayuk aajo moom xasida xasida boo koy jàng day raxa sa xol bam set wicc mu lay xamal xëybu xasida boo koy jàng dalay boole ci buur yàlla yi ñi wax la khawfun alayhi wallahu hum bi manam ñom duñu tiit duñu jàq mbégte mu sax aduna ak àllaxir la ñuy am yini a ngi déglu seen émission animation xasida ak Serigne Modou tiare idha katabtu tadh arshu rabbi wa sabbahat jundil xalilil hibbi idha katabtu tadh arshu al baqi wa sabbahat malaikatu tibaqi jërëjëf sëñ Abdou Khadre Diagne waaye suñu mbokk mi nga xam ne moo jóge léegi ci bu mu jokkoo bi tam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yu am solo yi di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu nangul nu ñaan yëpp te boole ñu ci barkeb Serigne Touba Cheikh Ahmadou ban Bamba Khadim Rasoul mu mel ne am na mbokk mu nekkoon ci ligne bi yàlla dogal na mu ricc 33 976 21 43 laaj bu njëkk bi mooy wajaxal kitaabati ka mislal xajji wa sawmi wa salaati ahli ji ñaareelu laaj bi mooy. آه، واجعل الكتابه يمين زل يوم فوق صلاه خبلت وصوم سيرن الحاج مبوب ني كاي جاجفال بو باخ باخ آه، كي تي ملني سيرن عبد الاحد سار سيرن عبد الاحد سار جزاك موم سيرن شيخنا سار موم شيخ سيرن سار ابن شيخ ابراهيم سار yow itam ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax ci ànd bi ngay ànd ak ñun jotaay bi ñu jël mbokk mu nekk ci lin bi mbokk asalaamaaleykum as sëñ bi na ngeen def. allo waaw sëñ bi na ngeen def. bismillah. ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax ñu ngi ko doon dégg sax 33 976 21 43 33 mooy bu mu jokkoo bi ëttu xasida yi ci rajo Zik FM Mbacke. muridun Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba yi lu mu ko yàlla jox. joxu ko kan ci ci ci nitu àddina bi abadan mukk mukk barki Serigne Touba lu mu ko yàlla jox joxu ko ko kan ci àddina bi joxu ko kan ci nitu àddina bi abadan abadan abadan abadan يخونكو كرامات لوم يلا وقت باغ يخونكو يخونكو الكرامات يخلق يب يب يب شيخ احمد عمو المروم مروم ال دي نبي امول مروم تي دي نبي يون جانا سير احمد دوبي قصايد الشيخ احمد الشيخ شيخ احمد دوبي هو من ذات تجيب لك اوبن 300 قصيده 300 قصيده لمج تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اكثر الناس الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب خسيدي جاب خسيدي قول خسيدي قول خسيدي جمت موم جل نسم جوبا جخ باي جوبا جخ باي ومن بدا خسيدي yi ak yéen ñu si dig. yàlla na ci daje moom. ci seen njàng mi. xam ko ne man. daal bi yéen xas yi dañ ko yàq ci biir rek mooy ñu dañ ko yàq rek. ñu ko yàq rek moom fu ñu ko yàqee rek du ko yàqu. sëñ bi xasida yii dara dara dara dara dara amul lenn lu baax. loo xam ne mën naa dab xasida yi moom. خسدي ركفني خسدي رك ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي Sëñ Tuubaa nee na mbindam la yàlla gën a bëgg ci mboolem mbindikaay yu baax yépp lu dul xasida yi lu dul xasida yi dara néew xasida sëriñ bi ñaan na képp ku koy jàng mu yëkkati la saw tur dala la la sa xel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 gannaaw nee na yuusilu xati man ba képp koo xam ne bëgg nga sama xasida bi dana la mën a àggale ci yàlla waxatuma la nga bëgg ko di ko jàng kon sag àgg ca yàlla bu ko nattat way an tawaabitiya bil muxtaari jumnata kulli qaari in annaari da nga def sama xasaayit yi muy pakk boo xam ne day dox diggante képp ku ko jàng ak sa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 moo tax sëriñ Tuubaa wax ne habliya kaw nu xalemi yam xalimin lawxika yaa man li saadati damin di ñaan foofu suñ borom subhaanahu wa taala ngir waxtu woo xamee ne mu ngi bind xasaayid yi mu mën di toxalee ca lawxul mahfuus jërëjëf gaay mbokk yu tëdd yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci abyaat yu am solo yooyu di wane ngëneelu xasida yi ñu jël mbokk mu ne ci ligne bi mbokk asalaamaaleykum waaleykum sëñ bi na ngeen def alhamdulilah. suñu caar. Mbacke Balla tur wi ak fooy wootee. allo. bismillah tur wi ak fooy wootee. bismillah. allo. waaw bismillah ñu ngi lay dégg bu baax. suñu caar. Mbacke Balla na nga def sëñ bi. sant bu baax. tur wi. waaw tur wi ndongal mbay lañ koy wax. sëñ bi na ngeen def. sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah tabaarakallah. ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf. waaw dañuy faral di la teewlu. ndeysaan jërëjëf. ni mhm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yàlla barkeel. amiin yaa rabbal alamin. waaw bi ñu doon bëgg a julli ci laaj yi kamis lal xajji. aywa bisimilah mhm. benn béy bu njëkk moom teewluñ ko beneen bi moom. wajaxal kitaabatiya min zal yawmi fawqa salaatin xubilat wa sawmi waaw boobu ngi ci mi mhm. wajaxal ñaari laaj bu ci njëkk mooy wajaxal kitaabati ka mislal xajji wa sawmi wa salaati ñaareelu laaj bi mooy wajaxal kitaabatiya min zal yawmi fawqa salaatin xubilat wa waaw bu bu xasida ak kii yaay faat ndeysaan ndeysaan est-ce que tur wi tur wi naka la yow noo tudd waaw kii Mor Mbaye nga koy dëgg la kay hmm. incha allah incha allah dañ ko xaw a fàtte daam bëy ñu bëggoon ci nga fii la ñu ah est-ce que hmm. allah bëy bi sëriñ di wax mhm. si wakaan aaxan waaw nag xulóobu mm-hmm. di tegaloo daal lañ bëggoon suñu xëy dëgg la incha allah incha allah mm-hmm. waa ci kàttan yàlla jërëjëf macha allah ñu ngi koy waaw bopp xas <laughs> euh, dëgg la kay nuuru daare ni wala jaalibatul maraaxib wala ma faatihul bisri waaw waaw jaalibatul <laughs> ah. waaw jërëjëf mu ah, jërëjëf waay. boobu bi daal jërëjëf jërëjëf. waaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk moomu doon woote ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax 33 976 21 43 muy bu mu jokko bi 33. 976 21 43 laaj bu njëkk bi mooy wajaal kitaabati kamis lal xajji wa sawmi wa salaati ahli najji. am na mbokk mu nekk ci ligne bi 33 976 21 43. mu ne ci liggéeyam boobu ba tey. radiya anni allahu wal mushaffau wa ahlu badrin wal ibada anfau nee na ci xasidaam yii sun borom gërëm na ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm na ko ci ahlu badrin gërëm na ko ci. te nee na moom nekkee wu fi lu dul jariñ jàmm. jërëjëf sëñ Xaadim Mbàkke Taïf ñu ngi koy jaajëfal bu baax. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw na ngeen def. ñu ngi siyaare bu baax a baax de. yal na yàlla na nga siyaar tur wi. alhamdulilah. tur wi. di rafetlu émission bi loolu ci mbokk mu ñuy wax Mourtala Thiaw la maa ngi wootee Touba Ndam. Serigne Mourtala Thiaw Touba Ndam. waaw Touba Ndam waaw. jërëjëf sëñ Mourtala. mu ngi rafetlu émission bi lool di leen ci ñaanal taw fexe tey ci barke Serigne Touba. amiin yal na ñu ko yàlla boole. wallaahi émission bi macha allah am na solo lool. jërëjëf yàlla yokk wér gi kattan gi. amiin te ngeen ñu bokk lépp amiin Thiaw amiin yaa rabbal alamin. borom ah, wax dëgg yàlla yàgg nañoo topp say bi ngay nekk yaakaar naa am na beneen rajo boo nekkoon xaw ma rajo Tuubaa fan la xaw ma. wallaahi ndeysaan dëgg la de. wallaahi yàgg nañoo topp say émission lool mu am solo lool wax dëgg yàlla. jërëjëf Thiaw jërëjëf Thiaw wallaay sa ñu ngi koy teewal di la ñaanal amin amin te nu bokk lépp amin te bokk lépp waaye amin yaa rabbal jërëjëf jërëjëf jërëjëf ci biir julli ci yonent ngi ci biir jéggaloo ngi ci biir mooy istigfaar ñaan suñu borom a ci biir jaamu yàlla ngi ci biir wut ngërëmal yàlla ngi ci biir xasaayid yi sikkar a ngi ci maanaam tur yàlla ci biir julli ci yonent ngi ci biir jéggaloo ngi ci biir mooy istigfaar ñaan suñu borom a ngi ci biir jaamu yàlla ngi ci biir wut ngërëmal yàlla ci biir تو باكل اكبر ندك السنغال ابدا باكل اكبر ندك الدينيه خلا مكه والمدينه ركله خلا مكه والمدينه ركله باكل بركي سرين طبعا بركي الله طبعا بي بوغنيتي بوجكتي بير طبعا بي دم جاكبي جولي فوفو يش فوفو جنجا دز لو امو تبن دكتي ماكشوت ابو كل ماكشوت باكل اك دكار صوفو صوفو طوبا باكل اصوفو ال دينبي نيتو طوبا باكل اك نيتو ال دينبي كر طوبا باكل اك اك اك اك نيتبي غرب طوبا باكل اك اك اك اك اك غرب ال دينبي نيتو طوبا باكل اك نيتبي اكل لك طوبا باكل اك ليك نيتبي نانو طوبا باكل اك ندخو تبا بكل بابو ملتخ داخل الشيخ الخديم من قفوه داخل الشيخ الخديم من قفوه من قد تبا قصائدي سكر انجي مانم تري الله كبير جولي سي انم تنجي كبير جيغلو انجي كبير مو استغفار نيان سن بروم انجي كبير جامو يالا انجي كبير الحمد لله رب العالمين mbokk bismillah ane Touba daa yàgg de Sénégal daa yàgg de kii de mbokkum mbokkum naar bii lu muy wax lu wëri la de xam nga lu yàgg la de loolu xam na ne am na soo xam ne xam naa ne. <laughs> ndeysaan <laughs> fekkul ñu juddu yaakaar naa ne. kéemaan la kay. kon moom Sénégal lu yàgg la. Mm-hmm, mm-hmm, ku yebu mm-hmm. xam ko noonu bàyyeekoo noonu mu doxe noonu jërëjëf ñu ngi doon li ngay teg nii ak di ko doxe nii nii di ko animé nii nii nii. am na ñu bëri ñoo xam ne nii bëgguñu koo dégg. ndeysaan ndeysaan waaye bu soobee yàlla bu soobee dinañ yor juróom-ñaari nopp. ndeysaan bëgg koo dégg bu baax xam ne yàlla moom li mu xas def def na ko ba pare. jërëjëf waaw waaw jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. bari na ku ñu gis mu amu melokaan di jàng xasida ba ñu xëy gis ko mu di diyaaram te xamuñu lu ko waral fekk sëñ Tuubaa moo ne wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaalihin li wajhi rabbi bari na ku ñu gis mu amu melokaan di jàng xasida ba ñu xëy gis ko mu di diyaaram te lu ko waral fekk sëñ Tuubaa moo ne wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaalihin li wajhi rabbi bu ko dee nag ngeen xam ne xasaayid yi mooy lépp ku bëgg a bañ a tàqale ko sëñ Tuubaa da ngay nangoo jàng xasaayid bu baax a baax ndax waxoon na ne kii jàng xasaayid ak ki koy déglu tam te te rafetal déglu ga ak man ñi ngi mel ni eh, njanaaw ak donqi ak laaf yi mënuñoo taaxali ko alhamdulilah jërëjëf eh, sëriñ Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Abdoul Khadir Mbacke ñu ngi koy santaat bu baax a baax a baax di fas yéene jël mbokk mu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum mbokk asalaamaaleykum eh, bismillah 33 976 21 43 mooy bu mu jokkoo bi 33 976 euh, 21 43 mooy bu mu jokkoo bi ngeen di déglu seen émission ëttu xasida yi ci seen rajo Zik FM Mbacke 93 point 8 xasida yi doon loo xam ne comme ni ñu koy faral di waxee saa su nekk rek seriñ bi dafa mel ni dafa laaj suñ borom tabaaraka wa taala euh, dafa xool lépp loo xamante ne taalibe yi mënuñu koo mënuñu koo ñàkk rek mu laaj ko suñ borom tabaaraka wa taala bi ko suñ borom joxee mu jël lépp rek daal di ñu koy defal ci xasida yi nga xam ne boo koy jàng di am ngëneel yu màgg yooyu di làq njëriñ yu tedd yooyu mbokk asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. bis bismillah. bismillah. bismillah sëriñ bi na ngeen def ñu ngi koy jégalu bu baax a baax ñu ngi ko doon dégg xam naa 33 976 21 43 mooy bu mu jokkoo bi 33 976 21 43 mooy bu mu jokkoo bi sëriñ bi wax ne xasidati faaqat xasaidal kiram wali taxuudu abadan xayral maram bayit boobu miin nañ ko lool muy xamle ne benn xasidam bu nekk kawe na xasiday gaayu tedd ya gaayu tedd ya nga xam ne euh, ñoo ko jiitu woon ak ñamu jamonante woon mboolem xasaayid ya nga xam ne doon nañ ko bind doon ci liggéeyal yàlla suñu borom tabaraka wa taala ak doon ci tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak la muy tedd lépp euh, génn xasidaam gu nekk rek faw xana leen kon loolu dafa doon loo xam ne da dafay wone màggaayu xasida yi nga gis ne am na ci ñoo xamante ne sax sëriñ bi doon na leen tudd ci mbindam ku mel ni Kaab ak xasaan ak ñi ni mel Kaab wa Kaab wa xasaan wal bu sayru xat baraxu wa kulluhum siruhu nuurun wa asraaru Sëriñ Tuubaa mi ngi xam le jëmm yu tedd yu mag yooyu di xam le ne kenn ku ci nekk rek daan na tagg yonante bi alayhi salaatu wasalaam ay tagg yoo xam ne suñu borom def na ci leer def ci ay secret waaye ànd ak loolu lépp rek mu ne xasida mi ñoo gën a kawe xasida yu gaa yu tedd yooyu kon loolu nekk na loo xam ne dafay wone génnee li nga xam ne xasida yi làmboo nañu ko ñu jël mbokk mu nekk ci liñ mbokk asalaamaaleykum. allo bisimilah sëriñ bi. waaw na ngeen def. ñu ngi koy jégalu bu baax a baax 33 976 21 43. lii qaadama faralahu kullu wali bi madxi xayril xalqi fii limbar wali sëriñ bi mi ngi mi ngi xam xamle foofu ne. asalaamaaleykum euh, waaleykum salaam. sëñ Modou Thiorès. waaw sëñ bi na nga def. ndogali li bu ñëwaat. na ngeen def Diop. naar naar bi moom a daaneel naar bi. dégg la kay wallaay ndeysaan. naar bi moo ma daaneel am na solo lool lool lool macha allah. jërëjëf Diop jërëjëf Diop. waa dëgg émission bi am na solo lool kontaan nañ ci lool macha allah. jërëjëf Diop jërëjëf. Eh, xasaay bi moom daa doon loo xamante ne dama koy wax saa su ne. du mhm. si bi wëri adduna gi yëpp. Mhm. mu def fa loo xamante ne lii mhm. Lamine def na ko wax lii Lamine deesu ko wax mhm. mu wëlbatiku ne karaamati xatiyati mhm. kon loolee rëy na lool te loolu am na doole lool dëgg la waaw ba tax na yal nañu yàlla defal mbuur fa amiin yaa rabbal alamin bég na lool macha allah jërëjëf bi di ziar bu baax a baax suñu papa bu baax ba léegi fa leen diwaanu Umar Moura. ndeysaan Baye Mamadou la walaay ndeysaan ñu koy ziar bu baax kooku suñu sëriñ la moo ñu moo ñu dalal alxuraan karim jàngal jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sëriñ Babacar euh, Diop doon wootee fële ca diwaanu Touba Umul Xura waaye di ziar bu baax a baax a baax euh, suñu nijaay jooju mu wax léegi rek sëriñ Mamadou Ndiaye di suñu sëriñ suñu sëriñ daara boo xam ne moo ñu dalal alxuraanu karim nekk foofee ca diwaanu Touba Umul Xura ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ak mboolem koo xam ne yaa ngi déglu rajo Zik FM Mbacke foofee ca diwaanu Touba Umul Xura 33 976 976. 21 43 mooy buumu jokkoo bi lii xaadama farralu kullu wali bi madihi xayril xalqi fii limbar yi nga xam ne siriñ tubaab mi nga xam ne foofu ne mbooleem mbir ya nga xam ne wàlli yi daan nañu daw di ko wuti ci sun borom tabaraka wa taala di ko sàkku muy ay xeeti daraja yu kawe di ay xeeti jaamu yàlla ay xeeti daraja yu kawe lool ay xeeti tiyaaba mu ne mbir yooyu ci seen jëmmi bopp ñoo bàyyi ko fañ nekkoon jëm ci mbindam lii xaadama farralu kullu wali bi madihi xayril xalqi fii limbir wali mboolem mbir yi nga xam ne wàll nañu daw di wuti ci suñu borom tabaaraka wa taala mbir yooyu ñoo jóge fañ nekkoon ñëw ci ay xasaayidam ci tagg yim tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nekkee fële ca Gabon ci Libreville loolu doon loo xam ne dafay wane ngëneelu xasida yi mu nekk loo xam itam lu làmboo ay secret la yu bare bare bare ay secret yu yéeme lool sax comme ni mu waxee ilaa tawaalif yi yaquudullahu asraara la ilaha illa allaahu samay taalif suñ borom wammatal nako ci ay talifam mbotum la ilaha illallah loolu nekk loo xamante ni maanaam lu yemi lol la nak non wax na ni asrar la ilaha illallahu secret la ilaha illallah wax na ila tawali fi yaqudullaahu anwar la ilaha illallah yàlla wammatal nako leruk la laa ilaha illallah ci ay mbindam ci ay talifam nga xamni batub khasaid rek boko jele euh adat ko manam da fay don lo xamni bo jele khaf bi khaf ku ne xamna ni ne la nga jël saat euh, ñëw nekk euh, soixante cent cent nga pilis ko soixante muy nekk cent soixante nga jël lif gu dog bi nga xamante ne moo xëcc saat gi loolu on la muy nekk cent soixante et nga jël euh, cekkantu bi mooy alif gi daal di koy pilisaat muy cent soixante deux nga teg ci del muy quatre muy cent soixante six gis nga batub khasaid rek manam boko adaté def lay jox 166 moy tolok la ilaha illallah la ilaha illallah boo ko adatee moom tam dafay tolloog 100 fay nek 166 loolu di wane la khasida yi euh lépp ay secret la serigne bi wax na yàlla defal nako ci mbotum la ilaha illallahu dellu wax ne yàlla defal nako ci secret la ilaha illallah kon loolu dafa nek lu yemi lool loo xam ne dafay wane njëriñ yi nga xamne khasida yi lambo nan ko kon mu mel ni li nga xam ne moom lañ ñu cërale woon ci wàllu waxtu sax agsi nañ ci ñi ngi sant bu baax ak di gërëm mboole mbokk yi nga xam ne ñoo doon topp jotaay bi ci fréquence bi 93 point 8 ak ñi nga xam ne ñoo ko doon seetaan ci youtube bi les grands secrets en wolof ak ñi nga xamante ne ñoo ko doon déglu ci rajo di so ci application bi nga xamante ne jàppandi na Play Store jàppandi ci App Store bi euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. rawatina mbokk yi nga xamante ne ñoo jot a tàbbi ci biir jotaay bi ak ñi amoon yéene tàbbi te yàlla suñu borom tabaraka wa taala dogali ko waaye itam ñi nga xam ne woote wun waaye wuute wun ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu nangul nu euh, liggéey bi te doolu ñu tawfiix lépp loo xamante ni njuumte la ci yàlla nañu ko suñu borom tabaraka wa taala jéggal waaye lépp loo xamante ni jub nañ jub na ci yàlla nañu ko suñu borom tabaraka wa taala nangul li gën ci ñun yàlla nu ko yàlla defal te mu dëppoo ak li ñu gënal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. xaside yi rek fi ne xaside yi rek fi ne lu dul xaside yi lu jàpp xaside yi jàpp xaside yi xool xaside xool xaside euh, am na mbokk mu nekk ci ligne bi mbokk mi asalaamaaleykum baat Serigne Modou Thiaré ko yoon yi diglu tontu yi. ndeysaan ndeysaan. assuré képp rek dama lay waxtaanee jar na ko jaajëf Serigne Modou Thiaré. Serigne Abdou Sakor Mbaye Touba sëñ Abdou Sakor Mbaye Touba Fall. xasida yi rek xasida yi rek xasida yi dara ñëw xasida yi rek. waaw. jërëjëf jërëjëf. allahumma amiin. jërëjëf jërëjëf. maanaam xasida yi ngay waxtaane. lu jar fonk la. ndax xasida yi. ku ci nekk sëñ Touba moo ko ci def. waaw. ndax moo ne xasida yi. gën na lépp ba mu def alxuraan. maa ngi rafetlu émission bi bu baax. jërëjëf waay. yow mi ngi def émission bi nga yàgg ci lool te wër. amiin parce que li ngay teg neex na lool macha allah. waaw dëgg yàlla parce que li ngay teg kat nañu ku xamul dara dara sax dañ fi mën di jàng. parce que daal moom comme ma ne jàpp wala ma jàpp lépp lu baax rek. bàyyi ko nag moom mooy jàppoo dara. jàpp ko nag mooy jàpp lépp lu baax. waaw jàpp ko nag mooy jàpp mooy jàppoo dara. waaw yéen ñu Sëriñ Tuubaa taxaw leen baax a baax parce que Sëriñ Tuubaa lépp lu ngeen bëgg def ko yéen a ngi ko Sëriñ Tuubaa ci rek di def ko kii na ajaali bi kontaan nañu lool de moom Sëriñ Tuubaa taxaw leen lool seen góorgóorlu yàlla bu baax a baax a baax taw bi lépp lépp yàlla yàlla def ñu taw bi ñu am na dëgg yàlla ginnaaw bi ñettee ñu bëri dañ koy jàpp ñun bu wàcc jàpp màgg bi ñu bëri dañ koy jàpp fii dëgg yàlla yàlla di baax sama fan la waaye moom dañ ne bëgg leen faral diglu bu waaye daal mais daal daa amati solo daa amati solo lool lool masha Allah bëccëg bànneex taw ak naataange ci seen émission animation facile wallaay daal li ñu moom doy na war daal ci war gàll moom nee na nee na ko liggéey macha allah amati ñu ñu leen di ñaanal suñu moom dafa leen gërëm suñu tubaab pour ñu suñu fàgg loolu ñoo leen di teewlu bu baax a baax a baax rajo yëpp ñu ngeen leen waral di def wax dëgg yàlla nan nañ ci xasida yi bu baax a baax a baax a baax a baax barke Sëriñ Tuubaa yéen daal fu ngeen bëgg rajo baag yàlla na fa rajo baag waaye yàlla na ko sëriñ bi àggale fu ngeen ko bëggee waaye allahumma amin allahumma amin barke Sëriñ Tuubaa nan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax waaw kay yéen tam nag ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax ñaan taw ci jàmm waaye yal na dolli ci baax a baax waaw tey jërëjëf jërëjëf siyaare jërëjëf jërëjëf jërëjëf moom daal li ma lay xamal mooy leen foofu nga ko rek bu ko foofu la foofu rek la wante li ma leer